mbokk yi seetaan Dakar Actu yi ñoo ngi leen di nuyu amaan mbégte bu baax àndaat ak yéen si seeni émission bii di Actu Débat ñu koy amal vendredi bu jot si waxtu wi alors tey nag euh, ñu dalal ki nga xamante ni moom moo nekk euh, monsieur Thierno bokkum que président du mouvement Azir Thierno Bokum maa ngi lay dalal ak jamm si plateau Dakaractu. maa ngi lay fay bu baax euh, Daouda di nuyu sénégalais yu ñuy seetaan. Mhm. Euh, actuellement yu nek Sénégal que diaspora bi. alors Thierno ñu wara a actualité surtout Covid 19 bi gis nañ li nga xamante moy mooy bi bu mu commencé si réew mi président de la république ubbi na buntu palais bi recevoir ñi nga xamante ñom ñoo nek société civile bi recevoir recevoir les partis politiques mooy les responsables politiques recevoir pouvoir comme opposition tout comme société civile alors démarche boobu d'abord yow bala ñuy sori nan nga ko gisee démarche bu ma jàpp na le lu lu mm-hmm. parce que dama jàpp na ne suñu demee ba en face si loo xamante ne ñëpp nañ ko désigner comme un ennemi commun oui mm-hmm. un virus bu dugg suñu réew mm-hmm. dañu concerté wu avec le Sénégal dans sa diversité, surtout avec les forces vives de la nation. Hmm. Euh, li ma new york yokk rek président recevoir leader politique yi société civile euh, etc., syndicats et yoyu, non la waroon solee dem seeti kilifa diine yi euh, nga xamante ne chaque élection dafa don dem. Hmm. di len seeti. Hmm. Euh, tey la waalo waroon gën a aay parce que ay relais sociaux lañ. Mhm. te mbir moo xamante ne dafa jëm si combat virus bi mu laaj ñuy wax ak sénégalais yi ñu war changer de comportement moom am na lu mu si mën waaye am na ñeneen tamit lu ñu si parce que ku si ne da am sa sphère d' mhm. donc euh, pour pour man loolu loolu moo si desoon mais mhm. waroon na gën a yaatal mbir yi. Euh, donc xamante euh, dëkku. Mhm. dëkku bu baax euh, conseil yu ko nii di jox. en même temps mu concerté wu ak ak les forces vives de la nation. officiellement est-ce que Thierno Bocoum di mouvement Azir jotoon nañ ko saisir laaj xalaatam si gestion pandémie bi non xam nga euh, ñom bañu def sen sen moom mi muy dafa ne fay wo opposition parlementaire comme ni ngeen ko xamee nekkoon nañ député mais nekkuñu député actuellement mhm. mais de toutes les façons comme nous ko waxé won classe politique bi comme euh, si mën di recevoir rek pour mhm. man amna solo mhm li si des mooy ñun am nañ possibilité dialoguer avec le pouvoir de tout le temps d'ailleurs l'opposition euh, opposition une possibilité possibilité dialoguer avec le pouvoir mmh. à travers mmh. les médias mmh. Madame, tey suñu amee proposition ak le xamante ne bëgg nañ ko wax euh, président de koy dégg. d' alors euh, tierno, si gestion Covid 19 est ba tey gis nañ président jëloon na ay mesures lu ci mel décrété woon état d'urgence état d'urgence urgence accompagner par couvre-feu.

parce que premier depuis décision il faut découler aussi appréciation bi nga am ci situation appréciation bobu nak si ba mu ne ba ne ne mhm. ki ko am le président de la république pourquoi mhm. parce que mom n'ai pas am possibilité informer aussi ci lu bari mhm. moi tax mu l'heure est grave sous des euh, déglu nga ko it ko gëm parce que moom moo nekk niveau bu war a tax mu ne l'heure est grave jël ay décision yoo xamante ne dafa jëm si couvre-feu jël ay décision yoo xamante dafa jël ci état d'urgence donc l'heure est grave dans ce cas sénégalais yi tamit dañ ko ànd ak moom ci loolu que l'heure est grave soo leen gisee nit ñi ku doon ku doon faral di dox gi par exemple wala di dox defi liggéeyam nga ne ko léegi dootoo liggéey mhm. euh, toogal sa kër ñi ñi respecté loolu yëpp waaye euh, ba ñu demee ba si biir dañu waroon évaluer un peu. Hum. xool ndax courbe maladie bi. Hum. méngoo na ak courbe bu am feneen. parce que su dee bañ ne l'heure est grave te ñu gis ne ay nit ñu ngi dee. ampagaay hum. en France un peu partout. déjà da ngay def parallélisme bi. waaye soo avancé tuuti euh, nga gis ne ne ñoom ñu ngi continuer di am ay problème mais ñun mbir yi ay benn la ñaar et cetera. da ngay nag xoolaat nag na ngay doxalee. loolu la ñuy wax changer de stratégie ñun ba ñu tollee foofu rek ñun dañu alerter ne il faut que ñu changer stratégie parce que mënuñu continuer si hmm. nii ñuy demee hmm. amuñu benn stratégie d'endiguement du virus hmm. bu leer benn ba pare ñu ngi jël ay décision yoo xamante ne ñu ngi sànq ay sénégalais. ay ñun suñu secteur privé. wala suñuy wax tey la population active 97 pour cent yi. secteur informel la ñu nekk. donc mënuñu jël mesures yi xaw a méngoo sax ak mesure en France parce que hmm. euh, d'ailleurs période bobo j'ai beaucoup parlé du confinement parce que président fait un ba Figaro mais hmm. suñ naree dem confinement ça dañuy un confinement hmm. donc on dañ une courbe pour ramener c'est en terme de stratégie dafa mingo ak Europe Occident surtout ak France da nga nous. ne dañu inspiré aussi nous dañu inspiré aussi nous ba pare nag courbe maladie beaucoup donc is courbe bu bu wut ñaari courbe yu wute ñaari stratégie yu wute rek la mën a am. Hmm. ñaari réalité économique yu wute ñaari stratégie yu wute lay am. Hmm. France 100 pour cent formel la fii 97 pour cent informel. Hmm. du benn. France mun nañu agir directement ci seen ci seen population active. fii mënoo agir directement ci population active ñu ñu ñàkk ngay jox mais ñu impacté mënoo leen jox. walla joxoo leen. France une population c'est une population vieillissante. nous hmm. une population est une population jeune. Hmm. te nous xam nañ ne loolu day jouer si courbe bi. Hmm. parce que maladie bi ñu ñu féete mag la sonal. que ñu féete ndaw. est-ce que réellement loolu am concrètement analyse yooyu est-ce que dañoo sukkandiku si France réellement nga yaakaar. euh, c'est-à-dire que li li li ma jàpp amul. Euh, euh, originalité par rapport aux décision yu jël soo une ba président su bay wax confinement. Hmm. diko gën ci gémmiñam. Hmm. c'est parce que vraiment xoolu suñu réalité socio-économique est-ce que mën nga confinement total am ci mi hmm. euh, nit ñi ñu ne pendant une période Yo vous yo déjà vivre yi nga ça sax. Euh, nit ñi si ba légui amo sax situation bu ko aussi nga yaakaar ne waruñ ci non situation ko ah oui xam li hmm. parce que da ngay def lu wax bilan coût avantage. xam nga tey hmm. soo amee une vision confinement moom baax na. Hmm. loolu moom du point de vue sanitaire. ñëpp xam nañ ne confinement baax parce que au moins dina dina la may nga am maîtrise ci maladie bi loolu c'est c'est pas discutable. waaye sooy xool lu mel ni épidémie wala pandémie da ngay am différentes visions da ngay am une vision sanitaire hmm. da ngay am une vision économique da ngay am une vision sociale mënoo am rek ben vision hmm. vision sanitaire mën le la yóbbu ci confinement mais vous avez ci vision économique ak vision sociale vous hmm. indi ay conséquences qui sont mo raw fouf kon réalité bi est toute autre Tout autre moy raw fouf covid bi manam yow da covid waye di nga indi xif di nga indi coono di nga indi révolte tout à fait te révolte bobu finalement li nga bëggoon yëpp du am. parce que euh, nit ñi ñu confiné wut en même temps aussi di nga fekk ni c'est trop tard parce que nit ñi dañ xex xiif bo xamante ak sonu sonu bo xamante ne ne mën na indi leneen. Mm. donc il faut ngay def bilan coût avantage. Mm. bañu bañu de ba ñu euh, courbe bi melul non rek lañ ñu évaluer ñu jël décision yu mel nonu mm. mais malheureusement ça a tiré à longueur. finalement si li ñu nek li ñu passé. Mm-hmm lan moo ñu mënoon tax ñu téye virus bi résultat yi ngay gis résultat wu conséquence su. Hmm. mesures yi ñu jël boobu léegi la c' ça c'est-à-dire que dañu jëloon ay mesures pour endiguer lan moo endiguer wu dara endiguer wu parce que mesures yi. Hmm. c' des mesures hybrides defoo confinement defoo defoo déconfinement. da nga jàpp ne dafa bëri maslaa. Euh, dama jàpp ne dafa bëri laxisme. laxisme laxisme de la part de l'État. laxisme. Ah xam nga lu ma tuddee hmm. euh, par exemple damay baré yone bi. hmm. fi amna fi amul. mais. Hmm. nga joxe ay autorisation. Hmm. de de de de circuler de circuler en veux en voilà pour n'importe quel prétexte nit ñi am ku né yor autorisation di dem di hmm. mais virus bi benn nit rek benn nit. su hmm. ko amee. Hmm. benn nit rek su duggee si territoire beneen ba. da koy wàll parce que parfois dañ lay naan woy cas communautaire bi Jakarta la jël c' est pas évident. Hmm. parce que euh, premier cas communautaire bi mun nga ko bañ a xam. tout dépend des systèmes immunitaires. mun nga koo xamante ne dafa jékki-jékki rek daanu feebar. peut-être am na keneen ku ko njëkkoon contaminé ku daanoogul. kon da nga jàpp ne c'est manque de rigueur. rigueur amul woon y' y' avait beaucoup de laxisme. par rapport ak loolu. mesure en tout cas territoriale bi waroon quand même mettre les dispositions qu'il faut. Hmm. parce que dama koy tout le temps mesure contraignante mom, toujours sous amé c'est une règle universelle am na xam dañ koy contourner mais du population population dans leur majorité ils respectent les hmm. les les consignes. d'accord mais nous égaré wu. Hmm. ñoñu da nga wara jël ay dispositions pour arrêter de la même manière so waxé confinement partiel par exemple nga couvre-feu le mais virus bi. man ak yow nii distanciation physique lañ am. Mhm. suñ ko amul woon ku si am si ñun mbir mi da koy wàll sa morom. tout soo paree nga dem wàllu ko sa waa kër. Hmm. donc virus bi xoolul ba bëccëg virus bi regroupement rek lay xool. Hmm. donc soo waxee couvre-feu. Hmm. après nga xëy nit ñi jaxasoo si dëkk bi. amul benn sens parce que ku koy yor këram euh, su génnee dina ko wàll. nit ku ko yorul këram su génnee jëlee ko si biti. su ñëwee këram couvre-feu bi dina ko wàllu waa këram. absolument donc amul amuñu amuñu règle amuñu vraiment stratégie. Mm. boo xamante ne mooy téye virus c'est-à-dire que suñu continué ne. Mm-hmm. da ngay perte dix perte les sec lu muy tekki mooy. Mm. virus bi doo parce que amoo loo def lu ba économie c'est social manam nit ñi dinañ nek ci ay choono yo xamantene ne suba. Hmm. soo leen di wax waxu virus duñ la dégg ni ko tubaab di waxee euh, ventre creux n'a point d'oreille. est-ce que kon japp nga ne waron nañ tollu ci jël genre mesure yoyu d'autant plus que wax nga ne défaillance la laxisme la est-ce que mesure yoyu amon na solo kon. waaw motax tax la mesure euh au début da ngay jàpp ne euh, début processus la. Hmm. suñ né preuve ñu ne l'heure est grave état état d'urgence couvre-feu etc. cetera. Mm-hmm. da ngay comme c'est grave dañoo commencé li, après mm-hmm. dañuy mujjee fii. Mm-hmm. waaye soo demee ba si kanam nga évaluer. da nga war évaluer nga gis na courbe bi bokkul. courbe bi bokkul. ba pare defoo li ngay def ni du efficace pour téye virus bi. mais da ngay changer stratégie. tout à fait voilà donc pour man dañoo waroon stra xam nga li ma lay wax ni yalla dafa dogal ne lima waxone la avant ba paré du lu wax après décision bi li ma la avant c'est-à-dire que ligne bi. Mhm. man loolu laa mus a wax. moo waroon nekk combat bi. bu yàgg dafa yéex. Mhm. waaye. Mhm. dafay ànd ak ay mesures d'accompagnement jël décision rek taxul ñuy wax. loolu moo yomb. mesure d'accompagnement da ngay am option. xeex virus parce que virus bi peut ko bàyyi rek waaye tamit hmm? bàyyi nit ñi tamit ñu dem liggéey yi waaye option yooyu remplir ñaari option yooyu hmm. da ngay pour virus bi da ngay def lu war hmm. ne port masque am lu muy contamination bi distanciation physique lu muy euh, contamination lavage des mains amna lu muy wañi ci contamination bi manan lepp lo xamantene règle pour que mu amono baña am transmission humaine jóge ci nit dem ci nit da nga wara xol yow état nan ngay def pour loolu ñu respecter ko Ben, moy état yow état nga wut koppar buy tax nga investir ci ay masque parce que masque num la mën protéger la la mën yor benn masque parce que soo génnee mën nañ laa jàpp. Mhm. nga yor benn masque di trembaleeg moom fu ne. Mhm. guddi gi nga yóbbu sa kër teg si sa kaw tiroir. Mhm. sax sa doom ñëw foyee ko et cetera fekk ramasser nga peut-être virus si mbedd mi ça pose problème. donc il faut que ñu expli gën a expliquer nit ñi ni ñuy solee masque ba pare mettre leur à la disposition mu doon ay prix yo xam peut-être dañ koy def ci pharmacie wala yoy pourtant dégg nañ président naan dinañ def ben opération distribution de masque. waaw kon da nga jàpp ne dafa tardé. par rapport non 10 millions 10 millions loolu dafa non mais ji nga affaire bi commencé bu melni ni Côte d'Ivoire 138 millions de masques lañ commandé vite fait. tout à fait Maroc mosuñu defar masque. Mm-hmm. fu mu toll nii dañuy importer masque. dañ koy importer parce que dañuy transformer seen industrie mu djublu ci masque. Mm-hmm ñuy def 3 millions de masques par jour Maroc légui dañuy importer dañuy importer dañuy jaay ay masques ñoom te mësuñu won défar masque hmm. donc yow dès le début orienter lolu ci lolu lolu mo gëna farata ceeb bi hmm. parce que ceeb bi ñi ngi koy jox hmm. ñooñu joxoon nga leen bourse sociale suba di nga leen joxaat chiffre euh, euh, bon euh, ñu ngi dund boobu ba léegi parce que même su li jéxé yi dañuy continuer di am problème parce que yow defoo luy tax ñom ñu mëna a liggéey wa mais nga investir ko si ay masque investir ko si distanciation sociale donc benn bi mooy loolu état na dugal loxom ci masque yi. Hmm. ñaar mooy état na am une présence dissuasive lu ma tuddee présence dissuasive. Hmm. mooy ginnaaw boo liggéeyee ak les collectivités locales. Hmm. liggéey avec les relais sociaux. nga xamante dañuy am responsabilité xam nga tey. am na par exemple ay masque yu ne ñoom du ñu ibbi. am jàngu bi ñu ne ñoom du ñu ibbi amna na ñeneen ñoo xam dañu jàpp ne dañu ibbi loolu yëpp responsabilité la. Mhm. ku ne damay ibbi. Mhm. kooku jàpp na ne mun na ko organiser. Mhm. responsabilité la. koo xamantene ne day ne du ma ibbi. jàpp na ne lu gën mooy ma bañ a ibbi loolu responsabilité donc état dafay xaw a lu ñuy wax décentraliser ay pouvoir am un peu jox ko les relais sociaux jox ko euh, euh, les les autorités locales. pour ñoom dans leur communauté. ñu xool lu ñuy organiser woo pour mën a liggéey loolu pour encadrer. voilà mais lool nak su weesoo. dafa am fenen fuñ koy xaar moy toujours day am ñuy jégg ñoo xamant dañuy jaar ci côté bi. Hmm. duñu respecter mbiri hmm. fofu nak day am présence dissuasive maanaam tey su dee mairie bi. Hmm. organiser wu na pour marché bi ñu fexé ba muy am distanciation physique ñi di sol masque et tout wa état nak su dee gis na né loolu day indi taxul mu mat. état war na mëna am taxaway fofu manam les forces de sécurité et de défense war am donc il faut que ñu sur ci distanciation physique bi travailler ci masque les muy mesure d'accompagnement par rapport lu ñu def parce que su ko deful. Hmm. lu muy tekki moy raxasu na ci té lolu mom mënul nek hmm. gëm na né warul euh, donc fondamentalement il faut nécessairement que lolu mu accompagne décision yi mais vraiment si li ñu mom moom nous woon ci dara parce que amuñu woon politique d'endiguement. malgré les efforts fournis. waaw xam nga effort euh, effort moom d'abord dañuy massawu personnel médical bi. Mhm. dañuy féliciter suñu vraiment ay spécialistes yoo xam ne liggéey nañu ci mbir mi. Mhm. euh, féliciter vraiment ñépp ñoo xamante ñu ngi ci. Mhm. comme nu ma koy waxee souvent mais euh, xam nga xam nga état dafa am rôle dafa am rôle. Mhm. c'est-à-dire que tey Covid am na suba leneen mun na am ginnaaw suba leneen mun na am. Mhm. doo topp naan ah mu ngi def effort problème bi du effort. loolu lu mu war a def la waaye ni mu ko war a defee moo am solo te ni mu ko war a defee. Mhm. bés bu lajjee day am conséquences yu grave yoo xamante ne askan bi ñoo koy supporter. donc il faut fondamentalement sur des questions comme ça. moom naa la wax sànq mu am beaucoup de concertation mais surtout nous jël ay décisions qui xam dafay méngoo avec nos réalités socio-culturelles et économiques. D'accord. Tcherno, Thierno nga responsable politique du mouvement alors discours à la nation du chef de l'État def am ñu bëri ñu jàpp ne démission par rapport à l'État. est ce que yow même analyse nga am. non que je dafa mel ni tontu naa C'est sa question si naa la ne. Hmm. Euh, su amul mesure d'accompagnement accompagnement. Hmm. amul mesure d'accompagnement su dee am na mesure d'accompagnement pour mon décision bi mo gën décision. bu amone bu ma ñëk jël bu ñu ñëk jël parce que bobu yobbu wuñu fenn. hmm. dañuy lolu moy perte dix perte les rek parce que arrêté woo virus bi. Hmm. te yaangi ndolal nit ñi. j'ai même écrit une contribution où dit l'État veut endiguer ou appauvrir donc yi yëpp dañ ci wax ba paré c'est-à-dire que non franchement li yëpp dañ ci wax ba paré donc même mesure d'accompagnement wax nañ ci avant du légui la koy wax. hmm. Le discours recoupe exactement ce qu'on avait dit et on pense qu'on devait le faire avant. Bon, mais je pense que mieux vaut tard que jamais parce que un mhm. sens bi confinement il faut que ñu xam. Mhm. il y a euh, le statu quo. Mhm. wala ñu avancer vers le confinement. wala nous desserrer Nous yooyu am nañu le statu quo bi wala ñu avancer vers le confinement wala nous desserrer nous allons nous assouplir statu quo bi baaxul dañoo war a décréter mesure contraire statu bi baaxul hmm. ok dem confinement musiba la. Hmm. assouplir rek moo fi sës. Hmm. donc amul beneen solution assouplissement. kon ànd nga ak mesures mais loolu laa lay wax ni assouplissement pas du point de vue économique bi maa ngi ñëw si yeneen point de vue. assouplissement moom rek lañ mënoon def. mais assouplissement avec des mesures d'accompagnement parce que nous, assouplissement non les gens dem non mhm. assouplissement avec des mesures d'accompagnement président Sibir, message mhm. a mesures d'accompagnement. Mhm. état dina taxaw. demal ne c'est ce avant. état dina taxaw euh, dina taxaw euh, pour mesure distanciation état dina joxe ay masques 10 millions de masques. mais 10 millions de masques trop par rapport ak population ndaw na hmm. trop taxaway bi tamit ñu ngi ndax hmm. bi dina am donc on va l'évaluer après hmm. si le wa mais mënuñu won dem confinement nous won rester Qui euh, il fallait que nous desserrer au moins ça nous permet de lutter contre le landing de d'endiguer le virus ou en tout cas d'essayer d'endiguer le virus mais aussi permettre aux populations qui sont impactées de de subvenir à leurs besoins euh, cela veut dire que yow andokon kon ak mesures yoyu surtout Euh, état si boppam moo waroon fexe ba nga xamante ni kenn du xalaat ubbi jàkka waxuma la euh, dem marché. waaw xam nga tey euh, état moom moo doxalee doxalin bi nga xamante ne ne. Mhm. waru ko woon doxee. Mhm. parce que tey man jàppuma jàppuma lieu de culte. Mhm. man lu ma jàpp lieu de rassemblement parce virus xamul. mosquée xamul. Euh, église xamul école xamul marché. xamul lan la xam. Mm-hmm. la transmission interhumaine Manam nek na ci nit. Mm-hmm. nit moytuul dugg naa si beneen nit. loolu le virus xam. Mm-hmm. donc à partir de ce moment pour man état su jëlee né man bëgguma dajalé nit ñi defuma ay lieu de rassemblement. mais do xalat ibi école. non non parce que école nit ñi dañ fay daje léegi soné non non non parce que école bi euh, dama koy organiser. Hmm. dafa am nu koy organiser mais ñeneen ñi tamit dinañ lan laaj. Hmm. légitimement. Hmm. ñomit bëgg nañu ibbi. ñu organiser ko. parce que en réalité gëm lo nit ñi que xalé yi. ñoo gëna mëna respecter règles yi. que mag ñi lolu mënul nek mënul nekk <laughs> mag ñi au contraire ñooy responsable ñoom ñooy wax xale yi def leen lii def leen lële donc c'est pas xale yi ñoom ñoo mën a ñoom nga nga gëm loolu ñoom ñoo mën a respecter gën a respecter que mag ñi donc pour man tey soo waxee école yi da leen di ibbi mais da ngay ibbil euh, une boîte à Pandore ku ne mun na taxaw ne effectivement man it nañ ma ibbil mhm. je pense que état moom moo doxal doxalin boo xamantene ne finalement mhm. euh, ku si ne bëgg laaj ne dafay ibbi donc soo bëggee def lii nag ba pare bëgg a bañal ñeneen ñi loolu mooy indi problème et c'est ça qui est très dommage dans la démarche de l'état d'accord ben alors suis venu ñuy année sur Dakar c'est une émission Actu Débat tey di dalal Thierno Bokoum, nek président du mouvement Azir alors Tierno, euh, gis nañ euh, ginnaaw feebar bi bu mu amé ci réew mi taxaway bi nga xamante état def nako euh fonds force Covid 19 1000 milliards 65 milliards yo xamante aide alimentaire lañ ko destiné alors Thierno nan nga gisee gestion bi d'une manière générale aide bi ak force Covid 19 bi. avant rek dégg nañ euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk membre comité bi di laaj ay per am si gànnaaw suba si ñu gis am ñu démissionné alors noo ko gisee d'une d'une manière générale. waaw xam nga force Covid 19 bi d'abord il faut que ñu xam ne. Hmm. Euh, xaalis la bi nga xamante ne ne nuñ koy amee dina metti trop. Ah. waaw dafa mel ni rek nga nga dajale li nga am yëpp def ko fenn. Hmm. moo tax gestion bi hmm. dafa war a leer c'est même indécent que muy bañ a parce que lii bokk na ci lu mën a hypothéquer l'avenir de ce pays si fànn bu ben benn hmm. mooy plus de la moitié da nga ko leb da nga koy fay beneen bi mooy li nga wax ne ne moom nga ci def mën naa wax ne amoo hmm. parce que su ñu waxee réaménagement budgétaire. Hmm. Hmm. këyit la ne dañoo lii fii la doon dem indi nañ ko fii. lii fii la doon dem indi nañ ko fii waaye budget prévision la. balaa ngay mën a exécuter ce budget day fekk nga recouvrer. recouvrement mooy. nga dem jëli say taxe jëli say recette fiscale jëli say recette douanière. jël ko téye ko. mën nag di dépenser mais ba ñu ngi ci premier semestre bi. Mhm. loolu yëpp fan nga koy jële recette fiscale yi demetul noonu nit ñi mhm. fayatuñu. recette douanière dematul noonu dematuñ ñëwatuñu. Mhm. donc ça veut que li ngay wax sax doo ko joxe su dee da nga si war a insister soo moytuwul di nga xëccaat feneen ak feneen ak feneen maanaam di nga ñuqi. loo mënti am trésor rek soo moytuwul. as néew soo moytuwul da ko dugal si mbir mi. ah nañ dajale nañ 1000 milliards yi ba pare. ba jënd nañ aide bi sax aide alimentaire bi. waaw non aide alimentaire bi 69 milliards la euh, en fait je veux dire. c'est très loin de 10 1000 milliards. Hum. Euh, ñu ngi doon dajale. c'est-à-dire hum. que ba may mujjee xam. dajale guñ ko woon. Hum. ñu ngi ñu ngi am na lu partenaire yi waroon joxe mais encore une fois soo gisee dépenses ñu wax ne def. amul alimentaire nga diaspora bi dañ leen avance mm-hmm. euh, entreprise yi bon euh, affaire yi sans compter. 15 mm-hmm. milliards yoo sénégalais yi euh, bonne volonté donc sénégalais yi ñu ngi mais su du sax directement parce que yow mm-hmm. à ton nom lañ budget bi budget en tant que sénégalais donc xaalis la boo xamantene ne dañ ko war a gérer nu mu gën a rafetee. transparence transparence transparence nag. Hmm. Euh, soo bëggee mu am da nga siy teel a jóg gis nga mbirum pétrole ak gaz yi ba mu amee. Hmm. dañ ne euh, franchement c'est c'est un scandale. Hmm. lu si xew mais plus tard lañu ñu soog a teg mhm. lu ñu wax cos pétrogaz maanaam structure boo xamantene ne ne euh, dafay jublu si loolu di ko saytu ñu ñu nag mhm. ñu nag ibbil société civile etc. cetera mhm. waaw bii tamit c'est la même chose dañoo commencé distribuer ñi ñi di wax waxu scandale ñu soog après def benn comité de pilotage pour mu saytu xam nga kon toujours maanaam dafa mel ni dañuy jël décision après su ñu ñi waxee. Mhm. xam nga du volonté politique volonté politique de transparence mhm. mooy lépp loo xam ne koppar la buy jëm ci askan bi. Mhm. boo xam ne ci askan bi la jugee war a ci askan bi wala ñu ko utiliser. nga teg en place des mécanismes de transparence avant même ngay exécuter le budget pour man loolu mooy une réelle volonté politique. kon jàpp da nga mais c'est des rires dafa am rek. Mhm. nga tek mbir mi. Mhm. dafa am leneen lu nuru. donc pour man lu ñu waroon def la avant. Mhm. surtout que euh, pour l'essentiel essentiel. une yi suñ dugalee sen de ñom ñoo def suivi bi et tout ça donc luñ ci xol peut-être luñ ci doon gëna a moy surtout lu passé. parce que lu ñu génn la diko joxé joxe ba pare boole si. Euh, ñu joxe ci ay marché et tout ça. Mm. donc loolu. bokkoon na si lu ñu lu ñu waroon saytu maintenant euh, j'espère que dina am rétroaction maanaam. Mm. dinañ dinañ loolu dinañ ko tàbbal. Mm-hmm. si ñoom lu ñuy seet ñu gën ko mën a seet euh, xool. Euh, et puis on verra par la suite sen que nous mujjé ah euh, peut-être duñu nous a une question yeneen questions yi surtout wax sortie récente yu acteur politique yi dab nañu peut-être ñu nous quel quelques commentaires par rapport à ak sortie gis nañ le président Sonko génn na wax ci situation bi gis nañ Aminata Touré ñëw moom tamit wax alors mu mel ni dañoo commencé am rentrée politique alors en quelques deux deux minutes. ah non rentrée <laughs> rentrée politique da ngeen di tooñ quoi non je pense que ku chaque leader politique moom mooy xool. Mhm. ban moment lay lay wax ak ban moment la dul wax loolu je pense que ngeen ko nangul ñëpp. Mhm. Euh, man personnellement euh, aw ma si benn commentaire bu ma si def. Mhm. Euh, li ma jàpp rek mooy chaque leader politique moom mooy xool ban moment la la la war a wax. d' accord voilà ñu bàyyi la nga tàggatoo. <laughs> waaw di leen gërëm rek di leen di leen sant. Mm-hmm. Euh, di euh, di leen remercier ci invitation bi di nuyu encore une fois sénégalais yi ñu doon déglu. merci beaucoup Thierno Bocoum président mouvement Azir ñu lay gërëm di la sant ci disponibilité bi c'était pas évident nga xam ne ñëpp a ngi confiné wu invité la nga ñëw ñu ngi la remercier mbokk yi doon seetaan ñu jox leen dig daje beneen vendredi ci émission Actu Débat jërë ngeen jëf.